sansalato cal bi ñamano jibri dew si gem bi doon fi seen commando borom caxu warul xeexek borom baatu neen seen xete ñu sonal comme ay fausse douce jibri ñëw na ànd ak confiance yuuxu ambulance ndigal laajal alliance xajul bonu ñooñu mbom jibri doo ko gis mu dos fu laay da xaar jibri fi samp ñetti mbaar kon nag ndigal da ngay xaar da ngay laajte fu ñu jigal borom ndigal la ñu te defar li ngeen tële nangul ndogal te xam ni Djibril Boy la yàlla yabal matin ni de dootul am Djibril ni gëm la ñu gëm ànd la caat Djibril ni gëm moo koy daaj fi nga dëkkal gorom ni gëm ñoo la bëgg ba gorom dóor déeni ñaay ba déeni géej repère moo koy yëngal gësëm repère repère na dafay yëngal xajal leen ko waaye ñoom dañoo bare ba seen yëf ma du calme du calme amna lo xamantene soko ne nit qualité respect muy esprit intelligent waroo ko ak ay force physique dama né et confiance victoire bi jot ngeen ko ba pare mané j'ai l'habitude de le dire dayo doomu adama bu len ko nat ci ay at waye du téré jox len ñëpp respect dayo doomu adama mu ngi ci njëriñ bi mu amal nit ñi yeen xam ngeen ni waa ji dëkk amalul njëriñ kenn borom de gi ni amel Baba Ndiaye dañu fi ñew dañu fi marche duñu dugg ci ay bir nek di déyantoog ay nit ñun publiquement lañuy wax li ñuy wax ragaluñu ko duñu ko wax ci bir nek ci mbedd mi lañ koy wax ñepp diko deg dégg. dafa ñëw dafa ma fii laa ko koy waxee ñamu toogal biir ay néeg sa gorom un ñoom ñëpp wax nañ ma dafa yaakaar ne mën na nax nit ñi mënuloo am un mandat si délégation spéciale ñu joxaat la mandat cinq

ça ne passera pas Regardez les bu baax ñi mu que des promoteurs ay jaaykatu suuf rek entouré campagne yëpp ñoo ko financé loolu lu muy nuru xaaral ma créer ay richesse ay nit ñu riche après lépp lu ma bëgg pour corrompre nit ñi ma woo ñooñu ñu ñu def ko su ma ko ma financé sama campagne ma woo ñu def ko fu ñu jëlee alal joju lu dul ci suuf si ma ne suuf dañu koy organiser jeunes yi dañ ci am part mané duñu nang ñu nangu suñuy jeunes ñuy dëkk ci région de Thiès té lolu mo fi mu doon c'est ce qui se trame li nga xamanteni mom lañuy rab ci souf lolu la bëgg jël le reste du Sénégal ñu dëkk fi ñun suñu doom yi nga xamanteni ni déjà juddu nañ fi

continue de sorte que Chamagui continue. continuer marionnette mom, soxlaa ñu ko fi ab Nene, bu ñuy aayoo nee ko nit ku mat nit koo xamante bopam boppam mu ay magam nit koo xamante ne kenn mënu ko intriguer nit koo il peut défendre sa population Mané la coalition entre nawle bima ma man population commune de Bambilor dinañ len taxaw mat taxaw bu mat les Lepp lu ngeen ne seen dañ ci taxaw Souf si dinañ ci taxaw les mat kenn du ko jël ko wax permettre qui que ce soit mu que di nang suñu avons so suñuy suñuy ñuy jël décision à Dakar di morceler dites may qui que ce soit lol, de manière d'accord, d'une dina jeex belle ne porte rek a fi am gars yi fi pour jaar pour ñu séddale soxli porte la moi le candidat qui est là de que ñu nous wax un job. moom moi leen koy permettre on va fermer cette porte cette porte est fermée désormais parce que Madame jeex c'est fini il faut plus l'appeler le maire donc ñu ñëw fii

gàcce la doyna na gàcce ça moom la wax mauvais aménagement amuñu sax fuñu taxaw gàcce passé wu mané wa ne Gorom 2 wax leen ma lan la leen maire bi defal kon nak kon nak da ngeen di choisir bulletin bu bleu bi. waa Gorom 2 da di choisir ce bulletin mitik xam ni emblème bi ab yëkka mooy aw nag bu góor bu weex mooy bulletin bi nga xamante ne bu ngeen ko choisiree man Daouda jong bii taxaw nekk candidat de la coalition ànd nawle suxali suñu gox dinañu àndandoo ak yéen ñu changer commune bi incha allahu rabbi donc bulletin bi moi bulletin bu Barbie. bi leneen li di wax élection yi dafa nekk élection yu particulière ndax ñaari vote le ñuy def dañuy voter élection départementale voter élection communale de leen ma bu baax maanaam boo duggee ci bureau bi ñuy voté dañuy teg ñaari benn kees bi mooy élection bi leen intéressé mooy élection commune beneen kees bi élection département la nun suñu coalition nekkul ci élection département une élection commune moo leen intéressé bu ngeen duggee ci bureau de vote yi na voté pour élection commune ba pare dugal ko si suñu kees ak bulletin bii keneen ku mu soob bu la neexee nga voté si benen kies élection départementale lolou na ngeen ko xam bu baax na ngeen ko ragné bu bu ragal bu len kenn bureau bu ngeen dugg représentant bureau bu ngeen dugg am représente la coalition entre nawle gox dina len conseiller dina guider donc bulletin bu baax avec un projet très ambitieux dama ne pas nga bàyyi ay clando amuñu sax garage bu ñu taxaw maa wax léegi nii ma ne ma ne ensemble lii tax lii tax ngeen war a voté liste bi xam nga mooy lan dafa am lu ñuy wax démocratie locale mooy permettre képp koo xamante ne investiru ñu la ci liste. xam nga ñu investir ci liste yi coalition parti politique sommes minoritaires par rapport à la population Nous sax 0,1% par rapport à la population bi la population représente, représenté wu ñu mairie bi nous ñu bëgg deux conseils consultatifs muy permettre ñi nga partis ci parti politique coalition de parti politique nous avons un indi seen xalaat mag jeunes ndax jeunes yi ñoo soxla liguey jeunes yi ñoo soxla jang jeunes yi ñoo soxla sport jeunes yi ñooy ay tailleur jeunes yi ñooy ay menuisier jeunes yi ñoom ay vulgarisateur jeunes yi ñooy électricien jeunes yi ñoom ñoo fi nekk tay te ñoo fi nekk ëllëg kon yëf yi waruñu ko yemale ci ay coalition de parti politique ak parti politique ci ay liste yu ñuy def loolu la ñuy naxé ci politique li ñu bëgg ñu ubbi ko oublie le débat nous avons di a dit seen ay xalaat di des seen ay seen problème remonter di discuter échanger. donc le le garage de yii ci la passé Nous avons garage de sorte que problème de promiscuité donc nous, Inch'Allah, nous dinañ ci discuter ak ñep ñi nekk ci milieu bi wax leen lan lañu bëgg mais également ñomit ñu proposer ay solution je pense que dëkk non lay doxé mais waruñu imposer dara nan li lañuy def par force dañuy permettre à tout un chacun xeebuñu kenn xalé bu ndaw bi dina wax soxlaam bañu démé kër si mbiri benn xale jox micro xalé bu ndaw xamna sem deux lay def peut-être mune ñun suñu jafé. jafé moy buñu ñu fi cité Baobab la dëkk buñu ñu fi dañuy dox ay kilomètres dem den jàngi buñu ñu la àgg dañuy sonn buñu waccé dañuy ñibisu wat buñu daan ag ci kër gi dañuy sonn ba duñu mëna jang mais loolu leçon la xalé bu ndaw bobu joxé na leçon waxna problème de mobilité waxna problème bo xamante accessibilité à aux infrastructures socio-économiques de base mais loolu politicien boo xamante ne da nga yaakaar ni ab docteur nga wala ingénieur nga naw sa bopp ba ne doo déglu askan bi juum nga juum nga dama ne fii ñëpp fi am cër ku nekk dañ la war a considérer métier yu ndaw yooyu ñuy xeeb métier ñoom paap ñii di nekk ay menuisier kenn du ko xeeb dañ leen war a accompagner dañ leen war a jàppale ba ci borom clando bi ñëpp la ñuy accompagner à travers notre banque communale bi ñu bëgg a créer banque communale bi am ay financement yu bari yuñ ñu ciy dugal pour jappalé ñëpp ñi nga xamanteni am nañ ay activité activité surtout artisanaux donc dinañ leen soutenir dinañ leen accompagner pour ñu mëna gérer seen activité ndax chauffeur clando bi entreprise la yor te yëgu ko chauffeur clando bi entreprise la yor te yëgu ko kon jar nañu encadrer ko wax nan ngay gérer so amé ñenti dërëm ñaar dërëm yi fi nga koy dugal yeneen ñaar dërëm yi fële nga koy dugal loolu il faut ñu wax ko ko pour mu mën a tabax kër pour mu mën a dund dund bu yàgg oui pourquoi pas ñooñu nekk ci activité yu mel noonu ñu xool nu ñu leen di accompagner ci wàllu santé accompagner leen bu baax mën na nekk on va y réfléchir et on va le faire incha allah donc ñu ñëw Gorom 2 fekk fi suñuy responsable ki ci jiitu di am Amsatou Sow ki ci topp Amel Baba njaay Saliou Diène Mor Ley Alassane ak ñi ñu àndal ñëpp maa ngi fàtte kodu Ndiaye ak Degen euh, njaay ak ñëpp ñi nga xamante ne waaw wax a ah, Saliou Diène moom laa tuddee troisième position Awa sar waw dafa amone ay jafé jafé santé di nuyu Ousmane ndjay mu ngi taxaw fi ci mbolo mi gis nako ko Ousmane merci beaucoup gis nañ sen taxaway Marème ndjay lo si suba mom lañu andal. xam nga gaay mom dañu yaakaare won duñu dugg Gorom 2 Gorom 2 ñom liñu am gorom ñun mom lañu am Gorom 2 ñun dañuy marche dañuy dox ci mbedd mi duñu ñu duñu tek ñu Nous ñu teg diil Nous nous ñun nous nous dugg ci nous di wax nous hein? merci donc 10 h 15 h nous reprendre le contact Nous Chingongi. nii ci jour gi journée bi ils vont bouger nous avancer.

soobi am sigi saak ku ko saaj bo ñàkk sa sens irritas réew defal mak di tok bala bàyyi di demi kil bema jobax du ma du mani fili star bu la tiit kanama fi di lay bu la tiit kanama fi def ko rek ngir am lu ba te bul si tiit bul si do rappeur ñëw na dafay yëngal xajal len ko waay nga ñoo pare fa sene nah, a fu kawé kon bi ngeen awe fa la len di ñeuf di nawe rappeur si xalé wala anax ko la Seyni Njaay ci xare man gisuma ko koy bare non robert si commune wala sàmm suñu moomin ne leen robert jëppi doo koy yëngal amul dem ba jeex ñu yëngal kuy bëggee RP repère da koy yëngal kaay ñu yëngal kuy bëggee RP repère da koy yëngal kaay ñu yëngal kuy bëggee RP repère da koy yëngal